asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokki amateur yi seetaan ci wasaare làmb cant ak ngërëm ñeel na leen tey ñu ngi leen di nuyoo fii ci stadium Ely Manel Fall bu Njaareem bi nga xam ne nii mooy dox ci diggante Déranger bu Mbàkke ak Bass Junior bu Jurbel Bass Junior moo ñu féete ndijoor moo gën a gàtt Déranger gis ngeen ko moo féete ci Bass Junior Déranger ak Bass Junior arbitre sifflé waat na Déranger ak Bass Junior bu Dérange ak Basiñor. Basiñor door na bàyyi. Basiñor door na bàyyi. attention. Basiñor la. ak Dérange Mbacké. Basiñor jàpp na moom. attention attention. Basiñor door na ko mboot. Basiñor dafa trois bi. Basiñor dafa trois bi attention. Eh, eh. ah laa mu gën a wax tax na suuf. tax na suuf gars yi. waaw maa leen di fay. macha allah tey ñu ñëw lendemain tabaski stade Diarème fees dell tool nii li ñu lay a wax mooy sa appréciation bi nga xamante ne génn ci tabaski bi ginaa bi nga baaloo ak def lépp fi làmb ji toll ak ni mbooloo mi génne ten ban sentiment nga am bi nga xamante ne mën nañu wax ne bu làmb Diarème toll fii da nga cee liggéey waaru am solo bu am maanaam. merci beaucoup mon frère xanaa di ci am mbégte rek ci image bu rafet bi Eh, ginnaaw bi na sante yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waajur ñu ngi leen di nuyu di nuyu eh, famille làmb yëpp di leen balwaax di leen balaax di rafetlu seen liggéey yéen waa presse bi ndax tey dama naan tey bis bu yeggee fii presse bi moo ci dugal loxo ndax maa ngi leen doon suivre bu ci mel ni eh, waa Leewtoo ak waa Wassare Lamb ak Baol Times site yu bari gis naa ni liggéey ci bis bi kon nag vraiment yéen Euh, cere ak soow rek la ni ko ni ko kii di waxee Macky Sall di waxee ànd ànd rek ñun ak yéen man boog man promoteur daal duma dem bàyyi ginnaaw presse ndax xam naa fi mu yóbbu lamba ak fi muy yóbbu événement te événement bu taaro mel ni yéen la euh, di sant nag bu baax di lancer benn message di wax ne lii daal dama bëgg état xam ne li mu doon def moo gën a garaaw fuuf li président Macky Sall doon def moo gën a garaaw fuuf lii waaw ci kaw loolu sax économique bi mu def. Mhm. moo gën a garaaw fu lii ndax defe naa. Mhm. Ah, li doon dajale ci daje dajewut fii ci stade bi. Mhm. kon dafa war a bàyyi làmb ji mu dox. dem ndax xale yi dee dañ cee yaakaar. lu ñu yóbbu seen kër. bu ñu fa jógee tey am lu ñuy naat ñu ne làmb ji heure bi daan tas dootu ko mën a tas bu dina ba jotee fu làmb mën a nekk day daal di tas ndax lool nekk na lu arrangé dëgg-dëgg ma euh, promoteur yi. mais beneen constat bi ma def bi ma ñëwee ci làmb ji làmb amul policier. loolu rek constat bu ma def la bi ma ñëwee ma laajte lu waral lool ñu ne ma euh, cerise d'or bi ñëw ci làmb ji ndax Covid bi troisième vague bi dañuy ñaan suñu borom mu jóge fi d'accord nan ñuy jàppale rek ñëw sécuriser doom aadama yi ñu respecté mesure barrière ndax bi may ñëw man maa ngi sama masque te booy xool stade ñu bëri takk na ay masque kon nan respecté mesure barrière yi rek waaye nanu bàyyi nañu sécuriser doomu aadama yi ndax tey ñi fi ñëw tey ay nit lan tey dafa cerise d'or dafa war a mën a ñëw taxaw waaye waruñoo taxaw croiser la roon naan naan naan naan Covid bi tax na duñ leen duñ sécuré loolu c'est pas normal man de ànduma ci. waaw nan la ñu si barrière rek. jërëjëf grand pape kon ñu bàyyi xanaa di sant leen gërëm rek di euh, sant famille làmb yëpp rek di leen ñaanal yeneen journée yi des ñu eggale ko ci jàmm ak salaam. yéen di nga xamante ne nii euh, di membre CNG am benn question d'actualité boo xamante ne nii yaakaar naa ne ñaar ñoo ko war a seq jëm ci xam ne mooy manager ak waa CNG ñoom lu ñuy dégg état du ko rumandaat mooy heure yi nga xam ne moom la ñuy tas lamb yi muy léegi loo xam ne jaaxal nañ ñu bari ndax ku xam lamb ak lu muy laaj ak combat yi ci a am ndax loolu noonu état concerné na ci yéen ñi nga xamante ne diggante yéen la ak état administrateur bi. waaw 19h30 la ñu wax au plus tard 19h 19h30 waaw loolu lañ koy wax rek mais lamb doo lamb mënut a loolu. xëy na peut-être mën nañ ko. ak sécurité bi ak heure yi déplacement yi. Hmm. mais ñun Diourbel mënuñ ko. Hmm. dëgg yàlla Dakar seet na mais fii añ bi dafay tàng. Hmm. Dakar mën naa bari 16 heures wala 15 heures. mais Diourbel fay bëri 16 ndax mesure boobu nekkul xam nañ ko def niveau national wala Dakar kese la yem. waaw mais xam nga texte yëpp dañ koy harmoniser au niveau national. maintenant région bu ci nekk mooy xool. par rapport ak li nga xam ne moo mën a nekk ci région bi. mu def tey ñu ñëw ci làmb ji gisuñu fi li nga xam ne mooy police da ngeen ci am accord wala ci promoteur bi la. waaw dañ ci am accord ak euh, parce que préfet bañ ci waxee police dafa ne ñoom mënuñu mhm. mhm. na ñoom boo leen police privée. Mhm. de na dox ci jàmm. jeex ci jàmm. ndax li gars naan journée yi ci des du am risque rapport wala ba léegi loolu noonu école la ñuy wax rek. waaw loolu dañuy rek. tant que jotuñu arrêté bu ñuy interdire. Mhm. dañuy déroulé suñu programme rek. Mhm. waaw xamul xaw suba mhm. que état moom xam la muy doxe heure état bokk ngeen jëf mbokk yi ñëw nañ ci deuxième combat de la soirée. di dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Less 2 ak Modou Anta. arbitre baa ngi waxtaan ak ñoom di leen wax li lamb bi bëgg ak li lamb bi bañ. Less 2 mu ngi dëkk foofu ci Mbàkke moo Modou Anta dëkk fi nga xamante ne mooy diwaanu Njaareem leen wax ne ne ki nga xamante ne mooy Thiolla production moo ñu fa dajale tey arbitre soufflé na ah Modou Anta dox na jëm si kawam Less 2 mu ngi arrière Less mu ngi arrière di tari saaram ah ñaari mbëri jegante nañ mbaa du combat bi dafa nar a gaaw ñu ngi lewaatoo jàppante nay loxo jàppante nay loxo attention Modou Anta dóor na Modou Anta dóor na waaye Less dafa jàpp daal di ràcc Less 2 dafa jàpp daal les de am na ñaari loxo ki xam ne mooy Bou Danta Bou Danta am na ñaari loxo attention teer yaa ngi dagg di wand attention Modou les de daf ko bëgg a xar waaye rëcc na daa kalba attention oh les de yaakaar naa ne Bou Danta daan na la les de yaakaar naa ne ah, daan na les de Bou Danta daan na les de Bou Danta daan na les maa leen di fay sama gars yi maa leen. champion li la njëkk a laaj mooy champion fan la duggoon tey wër nañ la fépp sa kër gisuñu la fu champion ne woon. non maa ngi woon ci dëkk bi. maa ngi bi maa ngi woon ci dëkk bi. la presse bi sa presse jaaram yëpp na la gisuñu ah, mais tey nga am ba nga xamante ni kenn du la waxati yàq combat du rëy si yow. nekkatoo Cheikh Niang bu ñuy présenté ci diwaanu Sénégal nga bëri xale ba nga xamante ne dafa toll ci monté yow mën nañ jàpp ne yaa nga ca kaw ndax ki nga xam ne mooy roi de waxul Cheikh Niang mais ban sentiment nga am tey bi nga wàccee di may booy sens. waaw mais sant yàlla parce que tey Ndiarème man fi fi laa juddoo fi laa yaroo màgge fi defee fi sama carrière lu bari parce que li ma fi bëre bëre mu ko benn dëkk li ma fi am ci ndam aw ma ko ci benn dëkk te li ma fi am ci ay ndam amul benn benn benn benn mbër bu ko am ci ay ndam kon li mën a xew mooy sant yàlla bu baax a baax su ma demee bay wàcc di bëre samay rak di leen may ay sens yàlla bàyyi ma fi di ma kàttanal ba may mën a bëre ñoom mais dama koy sant suñu borom. ndax Cheikh Niang dafa ñëw pour may booy sens wala faaw nga liggéey pour am dara ci Cheikh Niang. non Cheikh Niang moom ñëwul pour joxe boppam day ñëw pour ñafe ak yow ku ñafe ñu ñafe ku ñafewul mu ñafe boo ñafee man nag ba yàlla may la ñu xam ne mooy sa sens. mais li ñu jaaxal kii di Boris dafa ne Cheikh Niang du pousse du passe mooy bëre mooy daan. waaw nan bàyyi ba nekk ci biir géew bi wax ji moom jaratul muy bari lu doon wax ay weer. Ah, waaw ci yoon waaw ñun ay géwél lan tey Cheikh ñu xamee woon ko bu ñëwoon làmb day yëngu yëngal ñëpp mais Cheikh ñëw day toog benn place am ànd ak mbokkam lu waral changement bu bees boobu. non lamb jee ko laaj rek ñun lamb lu mu laaj rek loolu la ñuy def incha allahu rabbi. waaw ñun kenn dootu ko jàngale ci lamb. déedéet ñun kenn dootu ñu jàngal ci lamb. jërëjëf champion. jaajëf sama gars yi. waaw ñu ngi mag bi Tanor ñu ko koo xam ci Jordan Tanor ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay màggal bu baax Lamine Diagne. Tanor ginnaaw bi yàlla dogalee ñu julli ba pare tey di lendemain tabaski ñu dajeeg yow ci lamb ñu mag yi lan ngay nuyoo waaw di leen siyaar bu baax di leen wax namm naa leen trop nag waaw maa leen siyaar baax baax. Tanor bu Diourbel la ñuy wax amateur Diourbel yëpp yàgg a jooy ana ñu déggoon fi ay say combat yoo ne xëy na ñu ngi koy dox suuf fan la toll ndool waaw samay combat am maa am yaakaar rek maa ngi koy am fii di ko am yaakaar dakaar xëy na man ñi ma yaag bëgg pour jot laa jotagul ci ñoom rek maa ngi wax mbër yi nga xamante ne nii keroog gis nga bi moo dab yoo ñëwee so yooñu samay morom lañ ay soxu ay doomu dangu mbëri dañoo war a ñëw ñu bëree ñi nga xamante ne samay adversaire lañ ñu war a bëreel parce que bu ma daanee ku daan gabaar daan double Tyson daan Mbaye Guèye Junior daan Vandam kon samay morom amul kenn ku ma jëpp victoire wala ku ma ci a rafet palmarès dañoo war a ñëw ñu bëre waaw. ma déggoon fi amateur yi di coow benn combat ki nga xam ne mooy Tanor ak Franc ndax combat boobu yëpp bëgg nga ko waaw bëgg naa ko parce que comme li ma wax rek kenn gënu ma cee riche palmarès te ñoom maag ñoom làmb day neex muy Franc ak keneen ku mu mën di doon waaw. mais est-ce que tamit loxo yi la gars yi di daw dóor bi nga xamante ne moom naa ndax boo dee xool sa palmarès combat yi yëpp par kawoo la la gars daw. waaw gars yi de xam nga ne lu nooy la wër te fii moom amul lu nooy te yaakaar naa day gën a tar sax du ma may dara waaw damay dolli cere dolli ñeex rek. kon nga yaakaar jël tanoor léegi du nga bàyyi ko ba ca kanam door waaw yaakaar naa jël ko léegi mooy tane de parce que bu kalamee day gën a metti rek. tey bu ñu la doon tegal defal ay choix ci mbër ban mbër mu nga xam jàpp ne moom mooy bi lay gënal ndax boo bëree ak moom dana ne combat boo xam dana am xeex dana kii comme xam na ne mbër mu bëgg xeex nga mbër mu bëgg bëre nga. man su ma sañoon mbër mu may bëreel Sénégal yëpp dañ lay wax moo mën ndax loolu mooy may temps ma wane sama bopp fu ma yegg ma mun fa fu ma jëm ma mun fa yegg waaw. mais toog ay at bëree ndax boo léegi yaa bi wala ngaa toog di xaar waaw mais ñu ngi meñcee rek parce que ku am combat ak ku amul combat mënul bokk parce que aussi rythme bi mënoo chaque jour di continuer te amoo combat parce que combat bokk na ci luy motiver mbër maa ngi ñaan suñu borom indi combat. ba maa ñaan aussi sama rakk euh, ki nga xam xamante mooy déranger ak sama boy bi daan euh, maa ngi leen di ñaanal suñu borom dafa leen ndam sama rakk Siteu aussi mu ngi am combat maa ngi ñaan suñu borom may ko ndam parce que aussi ñoom it sama rakk lañ aw ma leen lu dul yegg ci làmb sax ñoom ñu romb ko parce que aw ma leen lu dul ñoom tey xam na ne promoteur bi ñu jàpp ne war naa mën a dëgg sa combat fi mu toll muy Pape Thialis di doomu dëkk bi ban kàddu nga ko yóbbante ndax xam naa ne amateur yi ngi naan Pape Thialis ne tëggal suñu mbër na tëggal suñu mbër comme nag mbër maa ngi nii ban kàddu ngay gën a Pape Thialis. waaw Pape Thialis dama koy lancé comme ni mu ko doon defee rek parce que moom yàgg na maa jàppale aussi comme ni mu ko doon mu defaat ko parce que début bi déggante woon nañ ba am lu mu ma que amoon naa yaakaar ne combat Tapha Tine Boy Niang man amoon naa njort ne dinaa bëre mais journée bi ñëw na ba pare mais nag di ko ñaan comme journée boobu xes na ñëw ba pare yeneen journée yi mu sóoraale bu baax parce que man aussi moom it comme ñun ñëpp ay doomu dëkk bi lañ ni mu ci doon jàppee mu gën ci jàppaat rek waaw. kon ñu ngi lay jaajëfal baax a baax. ñu ngi lay fay di bëggee ñëpp kon daan na. romb noonu moo taxoon ñu li nga xamante ni mooy combat bi waaye dafa toll nii journée yi nga xam ne mooy am ci diwaanu Ndiarème fi mu toll moom dëgg-dëgg. xajatu ci stade bi ndax njaareem dañoo bëgg làmb di wax ne naan làmb njaareem lay couvrir diggante Mbàkke ak Bambey ñëpp ay ñëw serant bi arbitre na ci diggante Malem Niani ak Bébé Ari Malem Niani moo leen féete seen Ari féete seen càmmoñ Ari te nga waat say tànk di wax ne bu ñu defee ni ñaari combat moom làmb ji léegi ñu jóge ndax combat yëpp moo du 3 minutes wala 4. arbitre baa ngi waxaw ñoom naa leen bëre leen. waaw waaw lamb jaa ngi noonu. ñu ngi leewaatoo ndeysaan. ah dëgg kat ak woykat ngay dégg noonu suuf. ndeysaan lamba ngoog waay. lamba ngoog. ah fii daal doy na waar. fii moom doy na waar quoi. combat ngi noonu ñii la waatoo ñii la waatoo fu toll fii nag reporté bi doy na waar métti na trop ndax dañuy traversé li nga xam ne mooy presse bi caméraman yi ay 16 heures dimanche lan den traversé moom mooy loolu ah kàggu sama caméraman toogal ah bébé Henri dóor na Bébé Henry mel na dafa bëgg a jeexal ki nga xam ne mooy làmb ji Bébé Henry door na waaye ba léegi ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo diggante Bébé Henry ak ki nga xam ne mooy Malem Niani Malem Niani wàcc na ci suuf Bébé Henry wàcc na fekk ji ko mel na dafa a jeexal combat bi ñu ngi lewaatoo ndeysaan ñu ngi lewato ndeysaan ñu ngi lewato ñu ngi lewaatoo waaw lamb jaa ngi bëgg a yàgg Bébé Henry mi ngi wàcc di yéeg ñu ngi lewaatoo ba léegi attention ki dafa Malem Niani door na gauche droite Malem Niani mi mel na ni ñu ngi lewaatoo ñaari mbëri ñu ngi lewaatoo ñaari mbëri yaa ngi lewaatoo ñaari mbëri ñu ngi lewaatoo maanaam ñaari dóor am na waaye dóor yëpp ay moom la rek. dooreeb ay dóoru moom waaye nag yaakaar naa ki nga xam ne mooy Bébé Henry li mu waroon a bëree bëree ko ndax moo sàcc doole tuuti ki nga ñaani ah waaye maanaam ñaani laaw na laaw soxor attention Bébé Henry Bébé Henry dur dafa teg loxo bi rek attention xeex attention xeex déedéet oh bébé maanaam ñaani jàpp na maanaam ñaani jël na coup waaye jàpp na Bébé Henry mu ngi roof loxo ba ca suuf. Bébé Ngaal Henry am na ngemb fi mu toll nii Bébé am na ngemb fi mu toll nii Bébé am na ngemb fi tol toll nii Bébé Henry am na ngemb fi mu toll nii attention oh Bébé Henry na malam ñaay da ko ëpp doole da doole ndeysaan doy waar mbay mu mën ki nga xamante ne mooy Zal Malick Niang muy combat bu doy waar ndeysaan. lii ay luur lañ ay luur lañ. arbitre daa ngi waaj a soufflé. demandé na. xaw ma looy bëree waaye daal ngay bëree. demandé na assistant yi ndax waar den wax ne ñu ngi fii ci ki nga xamante ne mooy Thiolla Production moo ñu fa dajale arbitre soufflé na ci diggante ñaari mbër yi Zalmane Niang déréeku na wuti ki nga xamante mooy Zarko Zarko mooy ngebo ngembul weex li Zalmane Niang jàpp na pompé Zalmane Niang jàpp na pompé bëgg na ko plaqué alaaxoo caxabal ba ba ñorul caxabal ba ñorul non Zalmane Niang ki nga xamante mooy Zarko daa jaay doole waaye Cheikh moom. général bu Diourbel yàgg naa pare. soxla tudd xale bi. ndeysaan. baa ngi waaj a lewaatoo. ar ngi waaj a soufflé. ah ndeysaan dama sonn mbay. ar ngi waaj a lewaatoo kay. Talla. yaakaar naa ne ndeysaan. kax na mooy soq am na lu mu dañoo soq am na lu mu sànni ki nga xamante ni mooy général bu Diourbel soq ragal naa nga am avertissement loolu kenn du ko def mbër waaway am na avertissement ar bi consiste na sisam soq ak bu Diourbel la aca mu ngi laaj ay sisam Lamine combat bi mooy combat diggante soq ak ki nga xamante ne mooy général bu Diourbel. ak général bu Diourbel. ndeysaan muy combat bu doy waar. moo ñu won gannaaw. wallaay ndeysaan. général la ñu jàkkaar lool. lamb jaa noonu. waaw waaw noonu ndeysaan. lamb jaa ngi noonu. Oh, oh. ndeysaan abi sifle na la ilaha illallah abi sifle na Général dox ci kawam abi sifle na Général dox ci kawam attention Sokh jàpp na waaye Général jàppul hee abi sifle na Ahmed Thiola Thiola production sa bés du tuut rawat na mooy lendemain tabaski laa mu xëjal fii kon mën nañu wax ne eh, arbitre arbitre sifflé waat na attention door na laa waaye baaxul attention général li ngay xeex baaxul ña ngay xeex attention door mu daanu attention arbitre sifflé na na lamb ji da ngay amaat avertissement arbitre sifflé waat na soq dox na dox dox na ci kaw général soq dox na général bu Diourbel ci kawam xam naa a fay dóor yi metti woon na waaye ñu ngi lewaatoo attention général fa nga baaxul Général yooru jàpp bi baaxul ci ndax boo dee xool soq moo lépp doore tuuti baaxul ci yow déedéet laa ilaha illallah laa mboot na ko mboot ba rëy na. soq ba bëreeg moom. man ak moom mbabatu waa Ndefnaan yi. ci la nga ma ko soq du ma sa morom maa la ëpp doole maa la mën mu ne ma kaa bëre ma ne promoteur bi tëgg ko ñu ñëw ma dem si gars yi di wax man leen le jour kenn du gis sama làmmiñ du ma xeex du ma xuloo waaye bu at bi suuf ma def ko la koy def dama sama yoon. doo ko def. ah mais dama koo dóor. soq ñi muul dóor. général. dama ko lu ma deux une minute. wuy ma général ñi muut a ñëw. général wuy ma xam ne kii moom mu changé tur tey nga am ndam nga bëree laa bëgg a xam lan nga bëree mooy. mais sant yàlla rek sant yàlla rek. damaa ñëw jógee euh, écrit góor yam dem écrit seeto laat gay ñëw wax mun na ñëpp nee xeex moo la gënaat kaay lekk ma ne ko laat jour ba damay daw ba ñëpp xam ne ragal laa. ma ragal dóor ko peese ko xam li mu toll. waaw mais li léegi sama kanam ku ñëw rek. ubbi naa buntu yi. billaay ubbi naa buntu yi. xaw xaw su boo du ma seen morom. maa ngi sant waa écrit Sénégal ñëpp li si kaw ba si suuf bu ma lumee damay juum ñëpp maa ngi leen sant mënu ma la fay di sant sama soxna nag. combat bi nii deux mois dama ko dama seen kër. waaye yooyu da cee bokk de. daf maa lu ma ma ne ko maanaam mu ne dama seen kër. jaajëf jant xan ak ki nga xamante ne mooy Bathie Seras bi nga xamante ni ki xam ne mooy Bathie wey dañoo xawoon a gudd yóbbu ko dagg wey ba ñëwaat ar baa ngi di wax li làmb di bañ ak li làmb di bëgg làmb jaa noonu ndeysaan fii ci Diourbel di daan may tabaski fii ci stade Elimanel Fall bu Diourbel ar bi kon nee na ak sang yi mbaa pare ngeen gannaaw ban daje wax na kële ñu ngi ci biir géew bi la ilaha illallah ah arbitre bi mbaa defaat erreur arbitre bi yaa mel ni arbitre bu gaaw a tiit la arbitre nga xamante ne mooy Bac Seras arbitre soufflé na mooy bonus bu ak Bathie Seras attention bonus bonus ni ngay dóoree baaxul attention bonus bonus sa garde baaxul rek naan dóor na nga wàcc bonus sa Thiès loxo mi mu ar kii Bathie Seras attention bonus attention bonus bonus attention bonus muy xeex xeex bi baax na bonus bonus da ngay ngay xeex baaxul Boris da ngay xeex baaxul. Boris da ngay xeex baaxul. attention dóor mu daanu. attention dóor mu daanu. Oh. non jël amul jël amul jël amul. voilà mbokk yi nañ ba léegi ci bi. ginnaaw bi arbitre soufflé ne carte am ko carte appui amul. ñu ngi waat. arbitre woote waat na te diggante Amady Police bu Mbaxaan ak Bathie Seras arbitre soufflé waat na arbitre soufflé waat na diggante Sathié diggante Bathie ak Police bu Mbaxaan attention ña xeex Police a ngay dóor attention Police daw na jël ko Police daw na kal Bathie daw kal Police jàpp na ko ràcc attention. attention attention ña ngay xeex ci suuf yaa ngay bëree xale yaa ngay bëree ndeysaan lamb ji lamb ji na waar ñaari bëre yi xale yi bëri mën a ñooy bëri nii attention bonus attention bonus oh bonus daan na ko bonus daan na bu leer ah lamb ja na lamb ja na lamb ja na lamb ja leer bonus bu daan nekk nga xamante ne mooy ak li nga ne mooy ah, sama kot sogu sama ko Cheikh Senghor sama kot Cheikh Senghor ah ndeysaan kot su waay gauche droite gauche droite gauche gauche droite wasaare lambo ñu ngi euh, Amar Diouf sëñ Amar Diouf ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi baax baax yéen a am naka coono maa ngi sant waa Njaareem yëpp di gërëm et di kontaan ci li ngeen def ko vraiment kontaan na bu baax a baax. bi ñu jógee si bis bu tedd bi di tabaski tey di lendemain ba nga ñëw ci xamante ni mooy eh, làmb ji fi am fi tey lan moo waral bi tey. non teewaay bi mooy bëgg làmb rek bëgg làmb rek waaw ah, di ko dund nag en même temps waaw cey eh, di gërëm sax ah, promoteur bi ma tuddee làmbam sama drapeau suba la incha allah. di ko waajal suba jàmm ji ma teew incha allah rabi. sa drapeau boobu ci lañ war a wax sax ndax sa bëgg làmb lii da koy ware wone ndax suba la nga tuddee làmb waaye teewul tey da ngaa teew ci làmb ndax sa bëgg ak làmb ban yëg-yëg nga tey bi ñu la xoolee ba xam ne ku bëgg dëkk bi nga di doomu dëkk bi bañ tuddee la làmb tey ban yëg-yëg nga ci lool non kontaan rek kontaan ci rek te it mënu maa fay waa Njaaram nag quoi di gërëm waa Njaaram bu baax a baax. waaw di leen sant gërëm. waaw mënu ma leen a fay moom vraiment. waaw ngay kilifa gu baax. ci wàllu ñaan macha allah suñu borom baaxal la ci ah ndax bëggoon nañoo xam maanaam ci profité ci bu gàtt ndax xam naa téléspectateur di la seetaan xamee la dañ bëgg a xam fan lan lay fekk ak nan la ñuy def tey boo bu amee yenn jafe-jafe nga dimbale leen nga expliqué explication bu gàtt rek ba ñu si xar yeneen di waxtaan waaw man moom ci mbiram junne laay fa laay yëngu ci wàllu faj waaw laa la yëngu ca ku ma soxla ku nekk daal ñaari numéro laa yor benn 77 la 577 22 46 bi gi des double 0 222 48 07 31 bi ndax mën nañ xam ki jógoonu jóg am jafe-jafeem bëgg laa seet si directement fan la war a fekk non mu ngi may fekk Pikine Pikine Kër Seex bu laajtee Omar Diouf rek caara teg si Pikine bi rek waaw bu yegg see ba foofu rek naa lii moom na doon bëgteeg kontaan ñi lay seetaan te bëggoon laa fekk bërëb te amuñu ko kon na lay bàyyi rek ginnaaw xam ne jot amul nga tàggoog mbokk téléspectateurs yi ak sa taalibe lay seet si waaw di sant di gërëm rek di sant Jurbel gépp waaw mënu ma leen a fay waaw di sant sant ñëpp nag bàyyi ma kenn yaa ngi jëf marhaba bi waaye jaa ngeen jëf di seen scène bi rek di leen ñaanal ca kaw ca kanam rek moo tax ma bég. boo nañ ko sëñ bi. non day baax sax ca kanam ca joli bi leen mbokk yi ba léegi des nañ li nga xam ne mooy combat spécial bi di dox ci ki nga xamante mooy Yamou Sarr bu ak ki nga xam ne mooy déranger bu écrit góor yam ndeysaan muy combat bu doy waar déranger di mbër moo xamante ni mbër mu naqaree wutal combat la ndax avance bi yóbbu nañ ko fu nekk gars yi la waral gars a delloo ko nag xëy na te kanam dinañ ko xam waaye di wax rek ne boo dee xool ci wàllu favori ki nga xam ne mooy déranger la Yamou Sarr moo leen féete seen ndeyjoor Yamou Sarr seen càmm déranger seen càmmoñ arbitre baa ngi waaj a soufflé mu ngi leen di wax li lamb bëgg ak li lamb bañ arbitre baa ngi leen di wax li lamb bëgg ak li lamb bañ arbitre baa ngi waaj a soufflé diggante Yamou Sarr déranger mooy combat bi ñëpp doon xaar laa ilaha illallah arbitre sifflé na arbitre sifflé na diggante Déranger ak Yamou Sarr Déranger mu ngi ñaan ñaan na diwoo wàcce tànkam di royo wuti Yamou Sarr Déranger mu ngi dox ci kawam Déranger mu ngi dox ci kawam Yamou Sarr mu ngi lewaatoo mëpp taxaw xaar ko attention muy combat bu doy waar bu yéeme ndax euh, ki nga xamante ne mooy déranger mbër mu gën a naqaree bëre ci làmb ji la waaye Yamou Sarr mu ngi ne tekk rek Yamou Sarr cokkaas na bàyyiwaat. Yamou cokkaas na bàyyiwaat. ndeysaan ki nga attention daw na jël na ko daw na jël na ko pompé na ko ci kaw déranger daw na jël na ko pompé na ko attention Yamou Sarr takk na ko attention attention ñoom ñaar. Déranger jàpp na waaye Déranger mbaa doo fay sa combat Déranger attention Déranger jàpp na daal di ràcc Déranger jàpp na daal di ràcc waaye yaa Moussa dafa jàpp dafa jàpp daal ba mu dëgër waaye bëriwul dafa la ngaa mu di xaar Déranger action attention épuisement naa am Déranger dafa ndànk attention la ilaha illallah na ko attention eh, eh. attention déranger jàppante bi arrangé wu la xam seen taay si nga lañ seen noonu muy dugg si damaa ngi noonu gars yi ndeysaan war nan ginnaaw bi intervalle boobu noonu amee bu ndaw ndax ki nga xam ne mooy champion mag boobu di ama seen borom tay si nga moo doon dugg si ñoon ndeysaan ñu arrêté lamb ji ndax nag champion bu toll noonu ñëw seesuñu vraiment ça nous fait honneur abdou sifle na arbitre sifflé na diggante Yamou Sarr ak Déranger arbitre sifflé na diggante Yamou Sarr Déranger Yamou Sarr bi. Yamou Sarr mbotkat bu mag la. Yamou Sarr bi. arbitre da nga sifflé arbitre da nga sifflé ñu ngi cokaas na. Déranger cokkaas na. waaye dara xewul. Déranger wàcc na ci ay tànkam. Déranger wàcc na ci ay tànkam. attention Déranger jël ba jël baaxul. yooru jël ñoorul Déranger. attention Déranger. attention Déranger. attention Déranger yaa mu ni tànk bi poson te boo dee xool daa mel ni Yamou Sarr doole ji macha allah liggéey na si pour combat bi. leen wax rek mooy combat spécial bi bu ñu jógee ci fii ñu ci nga ne mooy Cheikh Niang ak bonus bu mbaqaan bu karam attention dafay dem wax na ko la ilaha illallah. bi dina la. tët tët tët tët tët mboot na ko mboot ba rëy na mboot ba rëy na mboot ba rëy na mboot ba rëy na laa ilaha illallah dérange rafet na maninam xale bi coo pop pop pop pop pop dérange dafa ti ngay sufla ndeysaan xale bi daa bëri mbooloo xale bi daa bëri mbooloo ndeysaan dérange